sa détracteurs yi boo nee euh, loolu du du sénégalais yi ah c'est pas un débat des sénégalais mais biir APR dafa am ñenn ci say détracteurs boo nee Amadou Ba la ak opposition bi parfois ñu ne Amadou Ba a perdu les élections chez lui c'est vrai que 2016 et d'ailleurs quand le président vous a choisi en 2016 euh, puisque qui perd gagne ba 2014 bi euh, de quoi on pensait que daf la doon tester et on a on était loin d'imaginer euh, que mënoon ngeen gagner le référendum à Dakar vous avez vous l'avez remporté aux Parcelles ouais. et à et à Grand Yoff mu nekk mhm. les deux bastions électoraux 2017 législative euh, ngeen gagné waat Dakar 2019 ngeen gagné Dakar te li taxoon ngañaay boobu am solo mooy ne 2014 Khalifa Sall euh, dafa dafa opérer une razzia mu nekkoon une bérésina euh, pour le parti euh, pour le parti présidentiel léegi 2022 ñu ñëw ñu xalaat ne da ngay nekk maire candidat maire nekkoo ko législative yi mu mel ni da nga dellu si ñu génne poste coordonnateur Benno Bokk Yaakaar même bu fekkee ne assumé woo ko ngeen perte locale à Dakar perte législative à Dakar ci loolu la sa détracteurs yi sukkandiku nee nañu euh, comment on peut choisir Amadou Ba te il a perdu sa sa mais je ne peux pas euh, je ne peux pas avoir perdu mënu ma ñàkk élection yoo xam ne dama ci candidat par contre défaite bi naqari na ma et je pense que aussi je fais partie de la défaite parce que aussi euh, je suis membre de l'APR qu'est-ce qui s'est passé en 2022 euh, bi ñuy def élection municipale moi le président m'a consulté en toute objectivité. ci local ci local yi. ci local yi il y avait deux possibilités Parcelles Assainies ak Dakar. Parcelles Assainies quelques temps avant les présidentielles Moussa de dafa rejoindre le camp présidentiel sans que mu laajte ko parce que aussi booy restituer histoire il faut restituer l'histoire Euh, na nga xam ni noonu la demee woon man ak moom ak président ñu toog j'ai di au président nañ ko bàyyi ak maireem il avait pas demandé ça m'a valu d'ailleurs lu bari ci biir parce que nii les responsables de l'APR ba tey dañ ma ko meree mais sàmm sama kàddu moo tax en deux mille vingt deux j'ai pas discuté le choix de Moussa Sy je l'ai poussé pour ñu teg ko donte on avait en ce moment euh, des relations qui étaient un peu tendues ndax am na loo ci dégg ci ci ci élection yi c'est pour te pour wax la ni euh, man du ma téyel nit wala du ma fàttaliku loo xam ni euh, lu metti la wala lu ñaaw la dama non c'était un malentendu noonu laa noonu laa ko gisee j'ai de l'affection pour lui am naa respect ci moom et il me le rend bien mais j'ai dit il faut que moom C'est ce que j'ai dit au président. Le président l'a choisi.